ndaje mi li ko waral mooy euh, jëmmi dañ fay ñëwoon ne dañ fiy def benn euh, usine boo xamante ne usine buy produire engrais la maanaam te ñun ay baykat lañ xam nga ay baykat boo nee dañuy produire usine buy def engrais ci seen biir loolu danañ ca d' accord léegi bi ñu ko d' ak ñoom ñu mujj ko soppi ab descente boo xam ne ay cabinet lañ ciy tuur yaa ngi gis ndox mi nii ni mu bëllee ba dugg ci tool yi nga xam ne moom la ñuy bay te léegi jëm mi defar bi nga xam ne moom la ñu defar descente bi tamit dafa amul sécurité dafa baaxul parce que descente bi jugul jugul sax un mètre mur te côté sowu bi rek la léegi coté yi ci des yëpp ay barrière lañ ko mottalee nga xam ne saa yu feesee day wal dugg ci biir kër yi te beneen bi ci toppaat tamit mooy bu weesoo tool yi ñu yàq ci wàllu environnement bi maanaam ci wàllu dund gi beneen bi ci toppaat tamit mois de mars avril mai ku ne xam ne Bawol day ngelaw ngelaw lu bëree bëree bëri lu poussière loolu tamit day jugaat ànd ak li dugaat ci biir dëkk bi te dañoo toll jamono boo xam ne dañ ne dañuy xeex wàllum coronavirus te yaakaar naa lii jafe-jafe yi mën a jur ci wàllu wér-gu-yaram moo gën a bon premièrement loolu moom mooy li nga xam ne maanaam moom moo ñu taxoon a jóg. suñu suñu suñu plan leen la tey def nañ lii premièrement mooy oto moom dootul duggati fii oto moom dootul fi duggati su ko defee nag ñu toog waxtaan mais bala ñuy waxtaan it dañuy d'accord ci ne oto na moom dootul dugg fii di sotti fii parce que liñ ñu def doy na sëkk su o fi oto duggatul ba noppi nag ñu toog waxtaan waxtaan bi nag mooy leen na fi dañ lii moom duñ ko fi bàyyi di dund ak moom parce que même suñ ko fi bàyyee mu ne ci biir mel nii donte ndox mi génnatul li muy yàq ci dundu doomu aadama yi dafa bëri te suuf si am na ci ñoo xamante ne bii am na ci ko galas mais baayam fii la ko fi bàyyi loon ab tool ab tool dong la doon ci baayam tool boobu tey nangu nañ ko toolu baay mu caam mii nangu nañ ko suñu tool bii nangu nañ ko te tool boobu xoola ay ati at nit di ko bay di ci am dugub di ci am gerte di ci dund amul lu dun moom nga xañ ko ko xañ ki nga ko xañ yemoo ci di yàqaat la muy bay yemoo ci di yàqaat dund doomu aadama yi mais loolu amul lenn lu ko gën a garaaw suñu bakkan yi nag lañ ci teg ñu ci dara dara dara dara dara lañ ci bañul commandant ñëw na fi bu Kayel commandant bu Mbàkke ñëw na fi préfet woo na leen nee na 14h danañu recevoir feeg 14 bu ñu recevoir danañ waxtaan ak moom suñ déggoo moom xayruñ suñu déggoo ak moom danañ waxtaanaat doxalaat beneen plan d'action euh, oto oto yi fii tuur si jotee nañoo ak booy yi benn suur ba génn fi ay jaasi ne booy bu leen kar dañ koy rey booy yi nag bañuñu ku leen rey te suñ sañoon duñu àgg ak ñoom foofu. ndax loolu gënaluñu li ñu gënal mooy jàmm balañ fee rayante di yoorantee jaasi nag na préfet tax ñu arrêté lii nañ arrêté arrêté. lii liy wax ji tey wax ji mooy lenn comme ni ko sëñ bi waxee tey su fekkoon ne sëñ mamoor mi nga xam ne moo moom fii nga xam ne ñun ñii fi toog ñëpp koo fi xool ba gis bejaawam ba jàpp ne kii nii sëñ bi magu ko sax sëñ bee ko jàngal alxuraan lu nekk ci moom sëñ bee ko ci def te mosu koo laaj juróomi dërëm ñun ñi nga xam ne ay mag lañ. yor suñu kër ñun ñëpp moo ñu jàngal ñu dem di liggéeyi ci buñ mënee wax dañuy wax ne day contribuer ci développement réew mi te kenn yëgut ne mi ngi ci dëkk bi amul lenn loo xam ne dana ko def ba xaar ci état walla lenn mooy jël ay taalubeem di leen dundal di leen jàngal te laaju leen benn dërëm laajut seeni waajur benn dërëm loolu nag fu mu am ci Sénégal man damaa yaakaaroon dañ ko war a apprécier jàppale ko waaye amul lenn lenn lu xam ne mos na jógee ci état ñëw ci moom lu koy jàppale dama koy commencé nag ci nguur ga fi njëkk nekk muy sengoor man ci jamonoy sengoor maa ngi ca daara jee di jàng nguuru Macky nguuru dama ne du nguuru maki sàll du nguur Ablaye Wade du ma du ma dul yem ci bul tëb ñëpp ñëw ci maki sàll dama ne du nguuru Macky sàll du mbuur Ablaye Wade du bu Abdou juuf kenn koo xam ne daara ñor na la ba nga di ko jàppale gisuma ko fi